oustaz euh, di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bakkan bu ñam dund dana ñam dee lu jommul kenn loo xam ne dañuy faral di wax du jaas da nga dul xam euh, kañ la nan la ak naka la waaye moom dana fëgg sa buntu kër moom te bu fëggee dana dugg dara du ko téye moo xam da fekk si lu neex sunu boroom wala mu fekk la ci safante yàlla nañ ci yàlla musal mhm. njagatee dañu yeewoo xibaar bu tiis Mm-hmm. ay quatre heures du matin ñun si la ñuy yeew parce que peut si la def matinal mm-hmm. mantu daf ma woo ne ma yëgoo dara ma nekk yëguma dara c'est-à-dire mm-hmm. mu ne ma dama ne yëgoo dara ma nekk yëguma dara lu xew mu ne ma waa baax na yëgoo dara ci moom yi ma nekk non yëguma dara lu xew mantu mu ne ma waa tout à l'heure ñu daje euh, télé ba ma ñëw parce que peut-être bu ma ñëwee taaluma woon sama connexion aw ma habitude boobu ci fajar gi ma ñëw teg sama portable message bi commencé wàcc ma choqué njaga bu ñu waxee njaboot gu euh, kilifa gu nekk sàmm nga mm-hmm. boroom kër bu ne sàmm nga mm-hmm. te moom i daani kay kër gii moo nekkoon kilifa gi damay jëlale Bougane parce que mooy PDG mais bu ñu waxee njiit la mm-hmm. moom i daani kay la muy ku baax humble ku sincère ku disponible ci wàllu liggéey fokaalam bu mujj bi moo ngi nii sànq rek laa am laa koy ku ku ma koy dégtal. wallaahi man mi ñu ciy waxtaan koo xam ne buy wax ak yow amul dara dara dara loo si jàngat ci ginnaaw lu dul ku sincère. ku sincère wallaahi dëgg la. ku sincère. ak respect bi mu lay jiital. jiital respect bi wallaahi dëgg la. Euh, ni ma ko defalee defale na ko ku ne. Mhm. parce que euh, dañu wax ne comme ni ma ko waxee rek kilifa gu nekk sàmm nga te ëllëg sunu borom yolu oustaz moom a gën a xam yéen a ma gën a xam. Mhm. ëllëg suñu borom dina la laaj noo sàmmee sa njaboot. Mhm. te kër gi ak njabootam daf fene parce que moom la ñu ko dénk. mu sàmm ko sàmm gu rafet nag ba ni muy wuyjee. sàmm gu rafet weesuwul doo gis kenn ku ne moom i gëdd na ma yuuxu na ma. toroxal na ma war na ma ab kil kilifteefam sànq awa sekk la ñuy waxtaana mu ne moom i bu ñu rombee fii ñu toog di waxtaan mënoon na ni eh lii leen leen fi àndee jóg leen ngeen def li ngeen di def mais ne day ñëw nuyu leen ñu ne yéen a ngi noppal ko oh. bàyyi na ngi si jàmm après yéeg avant korité gi dañ toog fii parce que ñun dañu toog fii tës dañ tàmm bu ñuy wax ñu naan euh, dëgg neexul ñun lool lañ koy tooñax ah, ñoom Mamadou Mamadou foofu nag mm-hmm. dëgg neexul euh, bi ñu ko tooñee ni après ma wàcc vigile bi ne ma euh, am chassé bi ma jël sachet bi mu ne ma tijj ci biir gis ñu bind si moom i moom i daan yi. wallaay dëgg la. muy neer bu bari. dama ci ñaw samay doom ñaw ci. ma envoyé ko message mu ne ma Mame yaa ko moom bu ma remercier. te noonu la ko defalee ñëpp nag. ñëpp moom moom laa njëkkee ma nekk li ma ko defee noonu la ko def. man nii di wax ak yow. ma ne mu ne ma bu ma remercier waaye Mame Mbaye tamit yaa ko moom. wallaay dëgg muy lay wan ne nit ki mi ngi def sax te bëggul ku ko wax. bëggul ku ko wax. bëggul ku ko wax. xam nga kenn seexalul kenn lem. te dafa jafe nga jiite kër ñëpp ne la gongo. Mhm. souvent defante lay doon. Mhm. lay dëgg la. Mhm. mais moom masul dox ci loolu. masul dox ci loolu. man lépp lu may traité ci wàllum commercial moom laa koy traité parce que après dama koy noggatu ci xaalis. waaw ndeysaan. damay wax mu ne Mamba yaa gën a xam ne lii amul benn pourcentage waaye demal ci diw mu jox la. waaw nii la ma koy waxee. lay dëgg la ma ne waaye déedéet il faut ma CNG la nag il faut ma dagg la. mu ne ma waa amul amul ne ma waa demal ci diw dana la jox am na ci bu mujj bi presque cinq cent et quelques mille la loo xam ne man maa ko encaissé. Mhm. ci moom. waaw wallaay dëgg la. ci moom. mi ñu tiim xam ne masuma ko wax kenn. ci loo xam ne mënoon na mënoon na wax ne peut Mambay fii ngay liggéey yaa ngi fi am li nga fi am. dëgg la donc peut-être li boo ko am lii pourcentage bi lii lax lii mais fekku ko ci li ma bëgg la ma defal. dëgg la li ma bëgg la ma defal. Mm-hmm. Euh, mu nekk koo xam ne ni wax fa dëgg neex yàlla de ah gërëm nañu ko de. Mm-hmm. ñun. wallaahi personnel bi gërëm nañu ko. sant nañu ko gërëm nañu ko di ko ñaanal cat bañ koo jiitu fa ñu ko war a denc. amiin yaa rabbal aalamiin di leen fàttali ne tey la 16h30 lañ ñu wax. c'est exactement euh, fan la léegi di ko bi ñu ngi wax ne kon parce que message baa ngi nii. West Foire la wax. Mm-hmm. ci mosquée West Foire bi. mi ngi di levée du corps bi à 16h30. à la de West Foire. war ko yóbbu Yoff. waa enterrement bi Yoff la. 17h30. Mm-hmm. Euh, condoléances yi nag ñu fës ko daloo ca cité kër mm-hmm. kër góor gi. information boobu lañ jox bu fekkee amul benn changement yi je pense que loolu la. gis nga gis nga njaga. imaam Shaafi'i dafa waxoon ni. al